colonel Abdoulaye Ndiaye euh, ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. am nañu mbégte lool dalal la ci matinalu Rewmi FM tey yow yaay chargé de communication bu brigade nationale des sapeurs pompiers alors euh, colonel euh, ñu ne ay élément wu brigade sapeurs pompiers dañu leen a testé positif ci coronavirus bi kon yéen itam am ngeen ay cas ñu daal di woon dégg nag ay lim yu bëri ndax tey mun nga ñu wax ñaata élément sapeurs pompiers ñoom ñoo am jàngoro ji di coronavirus. coronavirus. waaw loolu lu am la donc am nañu ay ay cas yoo xam ne surtout ci caserne Touba bi. ah li am solo euh, du ñaata lañu li am solo mooy caserne bi daan dañ leen daan isolé. li am solo leneen mooy biñ leen béré am na équipe boo xam ne préparé woon nañ ko déjà donc équipe boobu ñëw na ba nga xam ne remplacé na leen donc liggéey baa ngi continuer foofu Touba. ñi nga xam ne aussi ñoom lañu ñu perte euh, ñu ngi am soutien wu Euh, état bi ah xam ne alors euh, ministre de l'intérieur euh, à travers bien sûr le commandement de la brigade générale bi ñoom ñu ngi leen di jàppale ah ak ministère de la santé bien sûr nga xam ne alors manqué wuñ dara donc lépp lu ñu war a am ñu ngi koy am ah daal mu ngi jaar yoon daal. loolu daal moo am solo waaw ñu wax ñaata kaa ngeen am exactement. waaw këñ la ko kooku boo leen xoolee ci. statistique bu ministère de la santé xëy na ñoom dinañ leen mën a jox exactement mais man fi mu nekk nii mënu ma laa wax exactement euh, li ñaata cas moo am. d'accord alors euh, euh, ngeen mel ni médecin yi aussi di jànkonteel ak euh, jàngoro ji mun nañu ko wax lu gën a bëri ndax yéen a ngi def ay intervention alors ci noonu mhm. est-ce que am ngeen ay matukaay yu ngeen jël jëm ci wàll woowu ñeel seen ay éléments. waaw ñun de comme ni nga ko waxee affaire bi sax affaire kër docteur la lu ci ëpp waaw parce que euh, feebar la mais euh, il faut ñu xam ne aussi que ñun ci lañ bokk parce que chaque jour ñu ngi ci contact ak population yi te feebar bi ñoom lay dal te comme ni ñu ko waxee dafa gaaw a wàllaate moo tax ñun lay euh, ñu sax ñun yëpp ñun. alors donc bi ñu xalaatee ne feebar bi war na yegsi rek donc maanaam ay février déjà ñun jëloon nañu ay matuwaay. Mm-hmm. yoo xam ne ne nañu caserne bu nekk jël ay motuwaay yoo xam ne ku ci nekk nit ku ci nekk day day jël ay motuwaay boppam mais aussi collectivement c'est-à-dire ñëpp àndandoo également jël ay ay ay motuwaay mm. yi nga xam ne mooy ku ci nekk li nga war a jël mooy gest barrière yi nga xam ne moom la ñuy wax fii mm-hmm. ah maanaam di raxas say loxo ak euh, yu demee noonu waaye collectivement aussi euh, ñun dañoo ne euh, caserne bu nekk donc na ñuy intervention bu ñuy def intervention forcément il faut ñu sol takk masque mm-hmm. sol gant intervention bu mu munta doon nag hmm. waaw te léeg sax bu ko jaree nañu jël masque jox ko nit ki nga xam ne moo ci moom la ñuy intervenir waaw pour que comme ça euh, ñëpp vraiment protéger hmm. waaw mais donc également distanciation moom bi ñuy wax il faut que ñu maintenir mètre bi suñuy diggante ñun hmm. déjà ci biir caserne yi ah, mais également suñu diggante ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy seqal ba nga xam ne alors vraiment wóor nañ ne alors ñii war nañ leen mën a jege waaw ñu soog leen a jege mais aussi sunuy jumtukaay dañ leen war di nettoyer ak fi nga xam ne moom la ñu bokk euh, yëpp endroit yi nga xam ne dañ ko bokk ah, maanaam bunt yeeg euh, salle yi nga xam ne dañ koy fréquenter lépp ci nekk dañ leen war a nettoyer périodiquement mm. ah euh, ak ay solution yoo xam ne dina leen désinfecter non ah. mais surtout oto yi nga xam ne alors ak moyens yi nga xam ne moom la ñuy liggéeyee donc yooyu yëpp bu ci nekk tout le temps dañ ko war a inter dem intervention bu ñëw dañ ko war a désinfecter donc am na protocole boo xam ne noonu lañ koy désinfecter nga xam ne day set wecc alors euh, am na leneen luñ ci yokk mooy su dee parce que euh, comme euh, dinaa si dellu soit léegi mhm. dañuy faral di bokk ci transport ñi nga xam ne dañoo feebar wala ñi nga xam ne dañoo faatu ci kii bi donc. Mhm. Euh, dafa am équipement bu tudd équipement de protection individuelle boo xam ne euh, dafay muur sa yaram yëpp daal pour protéger la. Mm-hmm. kooku ñun am nañ ci ah te nee nañu chaque fois bu ñu waree def loolu donc loolu la ñu war a sol. Mm-hmm. même bu fekkee ne dañ koo xalaat rek sax ci nit ki parce que yaramam tàng na wala mu ngi sëqat wala kii donc dañoo war a sol. équipement boobu pour mun a intervenir ci. alors euh, ndax colonel mun nga ñu ñëwal ci rôle bi nga xam ne tey sapeur pompier mi ngi koy joué si pandémie bi depuis mu commencé di mbas euh, Covid 19 bi. waa xam nga bi mbas mi amee Sénégal dafa teg benn comité bu ñuy tuddee comité national euh, de gestion de de l'épidémie sapeur pompier ñu ngi ci biir loolu. te ñooñu seen protocole li mu jox sapeur pompier comme lu mu war a liggéey mooy. Euh, daal euh, jëlee par exemple nit ku faatu ci ci feebar bi nga jëlee ko ci peut-être morgue ba yóbbu ko cimetière wala ñu mel transport boobu daal moom la ñu dénkoon ñun ba pare dénku ñu ne bu ñu gisee ku feebar wala koo xam ne mu ngi présenter ay signes ñun bu ñu laal mais nañu woo waa service de santé ñu ñëw def ko ñun loolu la ñu dénkoon comme comme liggéey waaye. seetlu nañ ne depuis quelque temps ñun sax day xamoon nañ ko parce que préparé woon nañ ci loolu. Hmm. depuis quelque temps ñun suñu bopp ñu ngi bokk ci transport ah ñi nga xam ne dañoo feebar. Hmm. comme bi bi mu amee Goudiri ci région Tambacounda. Hmm. ak bi mu amee Sédhiou. ah foofu yëpp ñun pompiers yi ñu ñoo def transportu ñi nga xam ne dañoo feebar wala boog dañoo yaakaar ne Euh, jàpp nañu feebar bi hmm. ñoo ñoo ñoo def seen transport te loolu ñu ngi xaar su fekkee ne euh, yàlla tere yàlla tere affaire bi yokku na ampleur bi yokku na dinañu gën a mun a dinañu gën a dugg ci liggéey bi mel hmm. moo tax ñun bi ñuy préparé wu en février euh, déjà prévoiroon nañu loolu jël ay ambulance yoo xam ne dañ ko pare équipé ko mu toog di xaar nga xam ne loolu rek lañuy def hmm. pour que su ñu waree bokk ci yu mel noonu rek ñu daal di pare pour def ko. Mhm. donc loolu caserne euh, yi ci ëpp ci Sénégal ci Sénégal bi yëpp am nañ ko. Mhm. loolu waaw mhm. loolu colonel dafa laaj jumtukaay ndax euh, fi mu ne bi yëf yi tàmbalee état daf leen jox yeneen jumtukaay wala euh, yi ngeen yoroon moom ngeen di jëfandikoo ba léegi ci caserne yi ne ci réew mi. non xam nga liggéey yu mel noonu. dafa laaj euh, liggéey bu xaw a doy la parce que ci mm-hmm. dañu si euh, liggéeyu feebar la boo xam ne dafa gaaw a wàllaate donc dafa laaj ñu am ay jumtukaay yu xaw a euh, particulier mm-hmm. yoo xam ne dafa lay mën a protéger protéger personnel bi nga xam ne ñun ñooy intervenir moo tax effectivement état bi jox nañu jox nañu vraiment moyen yoo xam ne engins yooyu ma la doon wax léegi na préparé nañ ko yooyu yëpp bu si nekk am na ay ay moyens mm-hmm. ah te ba léegi macha allah euh, moyens yi ñu ngi li ci problème bi mooy moyens yooyu benn yoon nga koy utiliser sànni hmm. donc il faudrait que chaque fois nga koy remplacer hmm. waaw ba léegi nag yàlla baax na ñu ngi ñu ngi am euh, ay jumtukaay mais fa xëy na bu waree weesu fii hmm. ñu war ñu mun a yokkalaat encore ay jumtuwaay ah te yaakaar nañ ni bon yaakaar non seulement ñu ngi ñaan mu bañ a euh, dépasser fii mais yaakaar nañ ne aussi bu fi dépassé woon aussi état bi comme ni mu ko commencé ni dina continuer donc ñu jox ay jumtukaay ci yu mel noonu. Hmm. kon naa mën na jàpp ne ci wàll woowu amu leen ci benn jafe-jafe. déedéet pour le moment daal wax dëgg yàlla euh, amuñu jafe-jafe. ñu ngi ñaan daal nag mu continuer noonu. alors colonel dañuy dégg euh, lu ci bari nit ñi daan ñaxtu ci sapeur pompier ni ñu yéexee bu ñu leen woowee ci euh, yenn intervention yi moo xam accident moo xam lakk ak euh, yu ni askan woowu tey lan nga leen di jox comme explication ngir xëy na ñu mën a comprendre loola ñuy jàppee yéex yéex yenn saa yi. waaw man de dama ne ñaxtu boobu xëy na bu fekkee ne daana am. fooku am euh, ci avant septembre la septembre boobu septembre euh, deux mille dix neuf jotagul mm-hmm. parce que c'est vrai que temps yooyu mënoon na mënoon na nekk na euh, ba léegi sax loolu mën a nekk mais mm-hmm. waaye gën na wàññeeku quoi léegi laa bëgg mm-hmm. mais temps yooyu li li ñu koy mën a expliquer mooy nga nga nga nekk ci benn foo xam ne alors dafay jege par exemple wala da yaakaar ne jege nga caserne waaw nga woote ne ah um, kii de normalement caserne bi warul mun a yàgg hmm. parce que caserne baa ngi nii mais li nga xamul mooy yow xëy na balaa ngaa woote am na ñeneen ñu woote ñoo xam ne hmm. moyens yi nekkoon ci caserne boobu yëpp engagé nañ leen ba nga xam ne yow sa woote dañuy obliger dem woo beneen moyen boo xam ne nekk na ci caserne bu gën a sori hmm. donc xam nga ne kon di xaar bi day gën a yàgg su fekkoon ne ci caserne bi la jege le les moyens di jóge bon boole ci nag nit ki bu nekk ci soxla moom hmm. loo gaaw gaaw gaaw pour moom day yéex waaw pour moom day yéex donc loolu am na ci hmm. bon encore que euh, dëkk bi gis ngeen ni mu mel léegi euh, tar vraiment ci circulation yi affaire yi donc yooyu yëpp moo taxoon xëj na avant septembre waaye gis ngeen ne donc septembre euh, fii Grand Théâtre vraiment président ñëw na jox ñu moyens yu takku takku takku takku waxtaan yoo xam ne toll na soo koy xayma ci ñaar fukk juróom benn milliard ci sunu sunu xaalis boo xam ne mu joxuñu ko ci ay moyens donc loolu jox ko vraiment euh, askan bi ci ay moyens yoo xam ne alors donc astam assemblée la ko jagleel pour vraiment euh, ñun ñu mun a def suñu liggéey ni mu waree moo tax depuis lors boo seetloo tey ci biir Dakar am na ay endroits yoo xam ne da fay gis ay moyens yu taxaw yoo xam ne nekkuñ si caserne mais ñu ngi ci bedd bi noonu di xaar di tax ñuy def loolu c'est pour que suñu intervention gën a gaaw pour wàññi délai yi nga xam ne alors moom la ñuy def ci diggante bi ñu woowee ak bi ñu yegg si mm-hmm. alors donc moo tax endroit névralgique yu bëri ci ndakaar fii ak yeneen endroit yu Mbour ak Thiès ah ñu ngi fa loolu day continuer ci Sénégal bi yëpp incha allah donc tey am nañu loolu mais am nañu aussi li ñuy tuddee localisation nga xam ne à partir de sunu centrale foofu dañuy xam position oto yi nga xam ne kii woote bu nekkee Parcelles Assainies dañu seet si j'ai l'occasion dinañu permettre oto bi nga xam ne moo même bu fekkee oto bi dafa demoon mission di dellu si mm. moo gën a jege moom la ñuy wax demal bon wax di oto bi na jóge ci caserne boobu wala na jóge fa dem dañuy seet bi nga xam ne moo gën a jege endroit bi ñu envoyé moo tax euh, boo seetloo bu baax donc ñaxtu boobu ngay wax euh, ñàkkul na gëj naa am waaw parce que léegi daal vraiment retard bi demeetul noonu comme ni ñu koy wax ni ñu ko daan wax. alors euh, ngir jeexal euh, ban. Euh, hmm. dénkaane ngay euh, yóbbante askan wi ci jamonoy mbas mi nga xam ni xëy na ci fagaru gi sax la ñu gën a war a insister que ci paj mi ndax ku ne xam na ne dooley réewi Afrique yi taxu koo demee noonu ci wàllu plateau médical. ci noonu hmm. itam bëgg nañu xam ndax yéen a ngi participer ci sensibilisation bi maanaam di ñaax nit ñi bu ñu gën a xam feebar bi waaye itam gën a xam naka la ñuy def ba moytu nga ñun euh, fu nekk ci Sénégal rek am nañ ko ay nit ñu bëri ñoo xam ne euh, du ñu jóge ci di leen euh, sensibiliser di leen ñaax ci mesure yi nga xam ne moom la ñu a jël yaakaar nañ ne nag ñoom à travers ñoom message boobu dina yegg ci non seulement seeni famille mais dina yegg ci ñi nga xam ne ñoom la ñu dëkkal ci biir ci biir dëkk yi donc loolu mun nañ ko tuddee sensibilisation de de masse. alors man nag li moom bëgg wax mooy fi mu nekk nii amatul. dara lu ñuy laam-laame ci feebar feebar bi mu ngi fi parce que chaque jour ah ñu dégg vraiment cas yi nga xam ne ñu ngi yokku ah euh, ñuy faatu tamit ni muy yokkoo vraiment war nañu tax nit ñi xam ne alors que feebar baa ngi fi et que lii ñu war a mën a teqaleeg feebar bi du lenn loo xam ne lu dul suñuy comportement c'est-à-dire ni ñuy am na ay gestes barrières yoo xam ne ñu ngi koy affiché nañ ko partout chaque jour ñu rappelé ko ah kooku vraiment nit ñi nañ koy respecté takk masque yi ah euh, moytandiku euh, comme ni nga ko waxee dajaloo bi rassemblement geeg yooyu ah respecter distance yi ñuy wax parce que feebar bi su yokkoo wala muy wàññeeku mu ngi dépendre si ñun suñu comportement hmm. su suñu comportement jaaree yoon feebar bi wàññeeku suñ comportement nag buñ ko négliger feebar bi yokk ah te comme ni ñu ko waxee virus bi nga xam ne moom moo indi feebar bi mu jàngoro boobu ñuy wax moom du déplacé li koy yokk doole mooy ñun suñu ñàkk doole suñu ñàkk doole moo koy yokk doole donc ñun nag donc il faut que ñun ñu rester fort ah, vraiment ñu euh, am doole boo xam ne di dinañu permettre yooyu ñuy wax yëpp ñu respecté ko gën koo respecté nag mm-hmm. waaw gën ko gën ci truc nga xam ne bu fekkee ne alof virus bi comme ni ñu koy waxee waroon na fi toog bu mois d'août ñun nañu fexee bi nga xam ne alo avant juillet ñu jëlee ko fi mm-hmm. donc parce que nañu yokk donc suñuy euh, comportement yi nga xam ne alors ay comme dafa war a nekk ku ci nekk dafa war a am comportement responsable mm. waaw muy xale nag di mag ah di di jigéen mm. vraiment mm. euh, dolli ko ci déjà li nga xam ne alors ñu ngi koy wax chaque jour moom ma dolli ko ci pour en cas de message mooy jox nit ñi ci feebar. am na solo colonel Abdoulaye Ndiaye ma fàttali ni yow yaay chargé de communication brigade nationale des sapeurs pompiers ñu ngi lay gërëm. mbégte mu rëy la woon ci ñun dalal la ci matinalu réew mi